Nous, monsieur le ministre des forces armées président et coordonnateur de Bernard Bokk de tout le département de Thiès bépp président du groupement bu lëkkaloo ci fédération des groupements des femmes de Jaxaw Thial yi fi teew ñu ngi nuyu

di nuyu ki nga xamante ni moom mooy coordonnateur u euh, patriote jàmbaar di Max Diouf mu ngi ñu koy jébbal suñu nuyu di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ah, ah monsieur le ministre nañu kontaan président Macky yow xam nga ne ñun dañoo mës bëgg ci acte yi président Macky Sall di posé waaye tey la raw tey la raw te ñu ngi sant yàlla ba mu jëlee kenn ci ñun di yeewoo ci gox bi di doom ci gox bi di jarbaat ci gox bi di sët ci gox bi di mag ci gox bi di rakk ci gox bi ñu koy wax ndeyrama ñu ndeyrama mu jël ko dénk ko lu rëy ci réew li nga xamante ni politicien bu nekk tey bëggoon na cee jot suñu borom dogal dogal ne moom la ko suñu président jox kon dañuy kontaan ci loolu ba tax na lépp lu laxasaayu woon tey la ñuy laxasaayu ndax tey la ñu bëgg ci ndombo bi ñu takkal suñu rakk suñu mag suñu sœur ndey Rama dañuy jël kàddu gi rek di wax di wax képp koo xamante ni da ngaa nekkoon ci goxu jaxaw caal yéen may dégg tey gis ngeen mbir yi demee daanaka ala daaw me wax kon na ñëpp mànkoo lu waay doon def na ko xeet ñun ñëpp nañu lëkkaloo nañu maase xam ne tey jii jaxaw caali am nañu kilifa yàlla yàlla mooy joxe cër keneen du ko joxe yàlla moo tànn kenn ci ñun jox ko ko ñun ñëpp danañ ko jàppale may wëlbatiku ci madame la ministre Ndeye Rama Gueye Diop la wax ne dalal ak jàmm bés ni ki tey bu ñàkkale doon amit bu mu amat bés ni ki tey bu am bu mu amat bés tiitaange doon am bu mu amati ndax tey góor ñoo lay taxaw ñii la président Macky Sall dénk suñu yëf la keneen du ko yàq ñun ñoo koy aar ñun ñoo ciy jàpp ñun ñoo lay gunge ba fa nga bëgg a yegg yàlla nañu ko suñu borom yeggale asalaamaaleykum wa rahmatulah sunu kilifa le ministre Augustin Tine qui est le coordonnateur départemental du Benno Bokk Yaakaar ñu nuyu le ministre madame Ramatoulaye Gueye di nuyu nag képp ku ñu andal ainsi que DC muy Demba Diouf moomu tok waruma woon sax a wax waaye dafa am témoignage bu may def tuuti rek ndax dafa am fu ma ndeyram a fekk jële ma fa am décision bu mu fekkoon ma jël ko mu jële ma ca lii may bëgg a wax damay jël comme témoin notre coordonnateur départemental ici présent bi Macky Sall dee ñëw Thiès am ci ñu mu yaakaar wóolu ko lool nga ànd ak moom liggéey ba yàlla def li mu def parce que dañ koy écouter rek ndax li dex ci diggante fi ñu àndee Macky Sall ak fi muy faloo ni géej kenn mënu koo naan waaye yàlla ci kattanam yàlla ci yërmandeem moo indi Macky Sall ci xolu nit ñi Macky Sall fal ñu ànd ak moom di liggéey ba 2017 ma ne man nag sonn naa sonn naa ndax am na âge boo xam ne boo fa tolloo li politique laaj dëgg ngir ku teel a tëdd mënu ko ku sawarul di dox mënu ko politique kuy wax waxu kaw ak waxu suuf mënu ko ku dul wax dëgg mënoo ko politique am naa fekk man ko xam ngeen ki man mooy ki def lii am ngay moyen am nga xaalis mënoon nga wuti ay kaar à travers le Sénégal ñëw di jiital nit ñi wan leen lii laa am mais defoo loolu samay mbokk yow mi ci moo say mbokk ak say xarit ñooñu dañuy sargal président ci gi nga xam ne moom la la takkal waaye yaakaar naa ne soo doon meeting dina demee neneen say wax ko booy nga fekk nag man ma bëggoon a jël recul sonn lool ni yàcc lool te bu sama xel demee ci Augustin ci duma xam lu may def ndax jàmbaar ju mel nii masuma ko gis bi muy ànd ak Macky Sall xaalis amul bi muy ànd ak Macky Sall parce que taxul mas naa ko ne docteur mu ne amay ko sonn mu ne ma lu ma ci góobe dinaa ko tax ndax Macky Sall falu xaalu ma ci la mu digaale woon ak ñun ca loola la ne looloo tax bi ma jëlee décision sama xel ne yaru ci moom ma dem rek toog sama kër ni at ba yàlla indi ma bopp chef de cabinet titre honorifique la maa ngi la ciy sant di la gërëm ndax teral nga ma teral nga samay xarit nga samay mbokk waaye teral aar bi nii teral su ma la ndaxulee dama lay wax ni liggéey bi yombul tam yombul lenn rek kanu may saas Macky Sall kuy liggéey ak moom doo sonn te kuy liggéey ak moom day yomb ndax li man ma ngi ci xale yi par le chef euh, le délégué de quartier monsieur le ministre d'État avec les ministres de je vais aller très vite parce que je suis une instance politique de bëriwul à mon expérience euh, ce sera quelque chose de très concis juste quelques mots pour dire que nous avons indi défi, pour être un petit témoignage si nomination bi nga monsieur le chef de l'État le président de la République Macky Sall euh, def na ko si biir Thiès te ñun ñi ay ni le président de la République jël ministère de souveraineté le ministre des forces armées le ministre du Commerce, mon homonyme, n'est un soi À côté des forces armées et du commerce, le président de la République rajoute une dame pour lui confier la bonne gouvernance et la protection de l'enfance. Cela fait quatre secteurs stratégiques dans ce pays-là. On Réo Amoul Karangé. amul lépp koom-koom waaye it xam nañu président ni mu bàyyee xel xale yi ak gouvernance maanaam jubal madame Ndeye Ramatoulaye Gueye qui a été récemment ministre par le président moom it mu dellu jëlaat deux directeurs stratégiques le directeur de la de la bonne fii Cheikh Fall nek mon tamit un soir madame Ramatoulaye Djelat, un autre directeur en ma personne daal confie la protection de l'enfance lolu le président a beaucoup fait pour tiers. Euh, je parle également sur le contrôle des cadres du parti qui sont là accompagner leurs soeurs. je les salue au passage di Waleï, Marine moom bokk na si ñi nga xamee ne jàpp nañ suñu loxo pour ñu jàpp si waaye li ma doon wax rek pour aller très vite sur les réalisations yi ñuy def si biir Thiès ñun li ñuy amal solo mooy njëriñ bi Thiès di jëriñu si politique bu président yàlla def na les bourses familiales yi la délégué de quartier wax léegi ces bourses familiales l'opérateur social du mettre en œuvre dans toute la région de Thiès j'ai été à la tête pendant trois ans donc si vous êtes familial à Thiès dinaay déglu waaye man maa a apprécier le président def dans les familles à Thiès quand j'ai quitté l'opérateur social à la tête d'une équipe d'experts nous ngi fii ce projet Thiès bénéficie actuellement de 31 000 familles bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. 31 000. Je pourrais vous donner les détails région par région, commune par commune, quartier par quartier. Le fichier est disponible. 31 000 familles bénéficiaires, faites le calcul. Nous avons 100 000 francs, 25 000 francs par trimestre, tout 31 000 familles bénéficiaires, si chaque famille perçoit 100 000 francs, ça fait 3 milliards 100 000 que les bourses injectent dans les familles à haïtiennes chaque année. 3 milliards de francs. Dans la commune nord, il y a 1186 familles bénéficiaires de bourses dans la commune. Et les statistiques sont disponibles dans les 49 communes de la région de Thiès. Il y a mon ami technicien qui me disait, mais le gros lot cette année est allé à Fandé. Mais dans la commune Nord, avec 1186 bénéficiaires, ça fait 111 millions de francs que le président injecte dans la commune Nord. Dans le quartier de Tchali, ils sont à 80 familles bénéficiaires de bourses. Lamine se va suivre ça désormais. Ces 80 familles qui bénéficient de bourses, vous pouvez calculer les retombées que cela fait dans chaque quartier chaque année. Donc nous, ce que nous c'est pour techniquement apporter un plus apporter les éléments clés vérifiables inéquifs, mais au-delà au-delà de l'argent que le président donne, nous avons été dans les familles. C'est autour de ces bourses que nous avons organisé ce qu'on appelle, ici les AVEC, qui sont à 680 avec entre Thiès et Tivaouane. Le leader est là avec des statistiques fiables. Les bourses de sécurité familiale, nous avons proposé au ministère qui s'occupe de cela de faire en sorte que tous ces bénéficiaires puissent avoir des activités génératrices de revenus. Ils ont accepté et ils m'ont confié ce projet l'année dernière parce que je fais partie de l'équipe qui a défendu ça à la Banque mondiale pour le Sénégal. Et il y a eu un résultat très positif. Le projet Yokukomkom qui est en train de se dérouler, la phase test se déroule à Tiwawa, et ça à Thiès, effectivement. Donc nous avons besoin de cela pour dire que ce que le président est en train de faire à Thiès, nous pouvons le défendre partout, Les statistiques à l'appui. Mais pour terminer, nous avons pensé qu'il faudrait, au-delà des chiffres, voir l'impact des Khalis Bob Amsi Kerry. Nous avons fait des reportages famille par famille. Les 31 000 familles pour chaque famille, nous avons un travail social qui va dans les familles. Nous avons un répertoire que nous appelons carte familiale, ce sont nos outils stratégiques, où nous avons listé tous les enfants qui sont dans les 31 000 familles. C'est pourquoi, car notre sœur Ramotla est pleine de vertus, et veut nous tirer de là. Regardez, ah, Moi, je suis dans ça à Thiès depuis 20 ans leneen donc qu'elle nous apporte dans une autre station à ah, ñun nag Thiès et je l'ai dit tout à l'heure quand le président donne des ministères à Thiès Augustin Alunsa, Ramatoulaï, Ramatoulaye et que nous ñu choisir des directeurs techniques à Thiès dont moi-même amatuñu lay pour Thiès il faut qu'on se batte à côté du président de la République pour Thiès

tey suñu né nee fi fii nga ñëw fële ci wétam je sais quelle sorte de dame elle est te liko deugal moy le l'homme le plus renseigné du pays ki réew mi gën soxal ki am information yu kenn amul mo xam lu tax mu tànn Ramatoulaye pour confier ko lool. Ne contestons pas le choix du président de la République parce que nous, nous def des femmes, donc si le président Macky le fait je suis le premier à confirmer le choix du président de la République sur la personne de la Laye donc moi, c'est mon message pour dire que je m'engage à côté de cette famille de ma sœur Sénébou Ndiéguène qui est là moi, monsieur suis diggante yàgg donc euh, ñu baal ma ci gudda parce que politiquement je suis encore à former waaye am na soxna soo xamee ne dafa jooy xatraayu ni man da ngeen maa jox bourse familiale may wër président pour gërëm ko sant ko su ma déggee ñu naan bourse familiale amul njëriñ woo leen moom a témoigné ni leen dinaa leen wax bourse bi fi moom ma fekk fi mu ma jëme a fi ma agsi waaye dama mënul jot si président pour ni ko jërëjëf tey bi mu ñëwee toppaat ñu ñu ne ko ah foofu day mu ne kon filmer leen jox ko kilifa yi te loolu man mën naa ko témoigner ndax nit ñi daan nañ jël kaar jógee Janaba jógee Taset jóge Nooto jóge fu nekk ñëw ni ki ñu jox bourse familiale yi lañ bëgg a xam ndax moom lañ bëgg a sànni suñu donc baax na ñu jox leen information boobu président de la République de Faye que nous remercions infiniment je vous remercie di leen gërëm ci mobilisation bu rëy bi mobilisation bi nga xam ne suñu sœur Ramatoulaye Ngay Diop moo tax ngeen def ko di nuyu monsieur le ministre Augustin Tine coordonnateur départemental de Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar di nuyu directeur de cabinet di nuyu monsieur Lamine Aïssa Fall di nuyu madame Seynabou Ndiéguène bu lim di nga jum di nuyu yi fi teew yëpp sama rak madame Wade Lamine Diallo di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci Benno Bokk Yaakaaru Thiès APR Thiès ñun nag dañuy sawar jël kàddu wax au nom de la convergence des cadres républicains wax ci Ramatoulaye Gueye liñ ci mën a wax dañu ne am na ku fi wax sànq buñ leen ni baax na laaj leen mbokkam ñun ay mbokkam lañ leen nit ñu nokkee ay mbokkam on était une famille politique mais on est devenu une famille biologique bokk ndey bokk bay, di xàccandoo di dóorandoo Ramatoulaye nag pour ñun ñu ko xam ñun li ñu xam ci moom mooy c'est une femme d'engagement engagement aux côtés du président depuis 2009 depuis Dekkal Ngor ngor boobu mu yoroon muñ boobu mu yoroon moom la yore ba am li muy am nii dañu ne ku yàgg ci teen baag fekk la ca baag mun na la fekk aussi nga génn ñu ne acam waaye moom loolu dalu ko n'a jamais jamais jamais rien réclamé mosoo dégg Ramatoulaye mu ne nommé nañ kii wala nommé nañ kii kenn nommé wu elle a toujours travaillé dans l'ombre avec efficacité avec dignité ba nomination bi fekk ko fi kon lii le président defal defal la ko ñun cadre républicain yi la ko defal yan bi ñu la yan yàlla na woyof ci yow monsieur le ministre ñu ngi non Non, non, jigéen Terama damay ñaan nga nekk le chaînon manquant bi nga xam ne ñëw pour assurer la réélection du président dans le département de Thiès dans la région de Thiès au deuxième tour slogan bi nga indi mooy unité loolu lañ la xamee da ngay yore sa puso di ñaw jikko boobu nga yore na nga ci département bi ba yàlla may la ndam en tout cas ñun convergence des cadres républicains on est unis derrière toi pour toutes les tâches foo ñu woo ñu ñëw loo jàpp ñu jàpp ci loo bëgg ñu loolu lañ bëgg tey xam naa ne ndam ndam ndam rek nga ga dafa ne lii ñu la yàlla nekk taal bu yàlla taal góor ga daf ma ne taal bu yàlla taal lu ci gën ma ne sànni ci matt moo gën mu ne ma déedéet mu ne sànni ci matt bala ngay bokk ci matt yi képp ku la bañ yàlla bokk ci matt yi jërëjëf olo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen teewaay fii bés bi bés bi nag du sama sama bésu famille la ndax ñoom ñoo bëgg sargal président ndax fal bi ma fal di leen ci gërëm di leen ciy sant sama bés nag naam ñëwagul bés bu ñëwee ngeen xam ni que Thiès aaye na bés bu ñëwee ngeen xam ni que Thiès benn la bés bu ñëwee ngeen xam ni président liggéey na fii liggéey boo xamante ni dinañ ko xalaat pour réélection am di leen wax ni ginnaaw bi ma gërëmee ñi fi nekk ñëpp duma dugg ci détails yi di lim ndax dafa guddi ba pare di jéggalu ci yàggaay bi di massawu ku nekk di leen wax dalleen ak jàmm di leen jaajëfalit li ñu fi indi tey muy sargal bi sama famille ñoom ñoo ko décidé pour def ko loolu moo tax yéen waa Thiès gisu ci seen bopp xëy na mais bés bu ma aayee militant APR militant Benno Bokk Yaakaar yéen yéen ay organiser seen bopp et boobaa Thiès dina riir di leen wax ni ki yore woon euh, microcentrale bi léegi dafa ni que gisul fenn sama photo sama photo warul feeñ président moo ñu ñor président moo ñor APR président moo ñor benn Bokk Yaakaar moo tax ñu war a teer suñu égo liggéey ngir moom lu fi defu moo ko def nit deful dara ku mu falit da liggéey pour moom donc suba ba ngoon jot ba bëccëg ñu ngi ci ginnaawam ñooy baay faalam li ma bëgg a wax nii tey duma fi nekk di fësal liggéeyu président sama directeur directeur protection de l'enfance ñëw na léegi junju leen ci couverture médicale euh, universelle lu mu changé vie wu population yooyu tungu ne du tel ñuy natal, du tew ñuy natal. ma bëgg leen woon na woowal kenn koo xamante ni bourse familiale yi changé na vécu am changé na quotidien wam pour mu wax leen lu président Macky Sall defal ko defal population Thiès defal population Sénégal yëpp à travers bourse de sécurité familiale yi waaw soxna si donc maa ngi leen di jox soxna si pour vous dire que ni du luñu ñu du préparer, ñu wala luñu manigancer man sama bop xawma ma sax touram mom si bopam mo bëgg ñew témoigner ma bayiko mu wax ngeen déggal seen bop su paré ngeen xol ndax li président def doyna na wala doyu leen merci. Euh, jërëjëf madame la ministre ma ngi nuyu ñëpp seen tour ak seen sant ma ngi tuddu Ndeye Fatou Thiam ñu gën ma xam ci Alima Thiam. ma dëkk Medina Fall Thiès may wax ci affaire bourse familiale bi ndax dafa am fu ma jëlee am fu ma yóbbu ma nekkoon sama borom kër yàlla def li gën mu bàyyi maak ay xale xale yi nekkoon seen digg jàng mais njàng mi dem nag bay sooxe lool bourse familiale boobu tax sama njàngu doom yi jubbanti ko ba mu jub macha allah ba samay doom di jàngaat ndax xale bi war na am kayitu juddu xale bi war na bu feebaree faju xale bi war sol yére xale bi war na jàngi te macha allah lépp ngi ci bourse familiale boole kook ay mutuelle de santé ci biir bourse bi boo feebaree faju say doom faju bu fekkee sa borom kër a nga fa moom it day faju kon ñoo ngi ñaan président Macky Sall bourse familiale bi lim ci def mu gën ko yokk ndax yokk bourse familiale yokku teem la te bourse familiale bi ñun ñi ci nekk doon ay bénéficiaire ñoo ngi àndandoo bëgg a falaat président Macky Sall au premier tour Macky Sall bourse familiale bi mu yokku moy sa yokkute ca kaw ca kanam macha allah président ñoo lay remercier. jef mbolo mi yene ko deggal sen bop bourse familiale yi gis ngeen li ci président def Ki neena wax na len fan la ko fan la joge ak fan la egg donc ñi ana ñu don dinga bourse familiale ñom sen bop ñoni ni ndol la indi ndax dañu joxe woon ben chiffre. ñu dem yokk chiffre boobu ñoom seen bopp ñoo demandé ñu yokk bourse familiale yooyu donc pour wax leen rek que réalisation président mën nañ ci wax fii ba suba te du jeex su neexee yàlla nag ci sunu programme bi dinañuy jël par secteur benn par benn ñu woowal leen niñ ñu leen woowalee ki ñëw léegi taxaw mu waxal leen seen bopp wax changement yi nga xamante ni président def na ko pour.

mu une bonne gouvernance ak protection de l'enfance plan Sénégal émergent c'est axe 2 qui wax développement du capital humain axe 3 mu bonne gouvernance Si bëggee am nag ndaw bi gën le meilleur citoyen pour demain da nga koy commencer léegi ba mu nekkee nga ak pour que le concept yi ñuy wax ak principe yi ñuy bonne gouvernance mu mën ko màggaale nekk ndaw bi nga xamante ni tëgg bi gën moom la am protection de l'enfance boobu mënuñu ci wax aussi te waxuñu waajur yi donc en attendant yeneen activité yi di ñëw di soñjaat waajur yi di leen wax que ni sunuy waajur fañu ñu tegoon démb ngal la ngal nañ fa teg sunu ay njaboot puso bi bu mu mës a réer si ñun comme ni ma koy waxee dama bëgg ñu dégluwaat xale yi dama bëgg ñu aaraat xale yi dama bëgg ñu éduquer xale yi pour que ñu am jeunesse bi gën mën a am suba avenir bi gën ndax sunu tedd ñun ñëpp ci la nekk bi loolu weesoo ma leen di wax ni waa Thiès ñëw naa ngir jàppale leen xëy na soobu ma ci woon soobu naa ci ci sama waar mais dama ñëw taq ci répp waalo waalo du dellu ginnaaw waalo waalo du ragal walo waalo walo walo du dox muy du wax muy deñ nam yëf yi metti na lol xamna ni wit commencé na metti gis naa li xaar li Fama dara waxu legi fit bi nek ci mom bu mel nonu mo nek ci man wala bu ko upp xoxatal duma tax a dellu ginnaaw saaga tax takku lëkkaloo ànd sama frère Lamine Ndiaye ma koy woo fii su mënee ñëw pour wax leen unité bi may wax fii lañ koy commencé ci caali ndax sama frère laa fi nekkal la sama frère laa fi nekkal gis ngeen message bi mu lancé léegi dara mënul dox suñu diggante man ak moom bi ñuy xamante boobu politique doxul suñu diggante politique mënul dox suñu digënté d'autant plus que ñun ñaar ñoo bokk même parti donc xam à partir d'aujourd'hui on va travailler étroitement la main dans la main fu ngeen gis Lamine Ndiaye gis ngeen ma ci wetam su ngeen ma gisul ci wetam sama engagement moo ma ko mayul unité boobu su commencé fii HLM Thiali maa ngi woo waa zone nord su paré su paré zone nord commune yi nekk ci Thiès yépp nii laa bëgg nu ñu jàppaloo suñ ci jógee dem si département bi xam leen ni faa lu Macky Sall mu ngi fii pour ñu àndandoo ñun ñëpp liggéey ko liggéey bu sell boo xamante ni incha allah 2019 si kaw si kanam rek du ñu tudd kenn ku dul président merci beaucoup. jërëjëf Lamine merci. merci beaucoup. ñi fi ci bi c'est bon micro jiital ci bi Madame le ministre de la protection de l'enfance et de la bonne gouvernance di nuyu mbolem directeur bu fi nekk di nuyu mbolem kilifa bu fi nekk di nuyu ñëpp ñi fi di rafetlu

sa collaborateur yi témoignage ñu def dal na xel aussi monsieur Omar Sar déglu nañu ko bu baaxa baax Sarr c'est une compétence sûre peut-être que xamante woon xamanté won nañu <coughs> pardon mais minanté wuñu union li ma fi dégg tey amna ci bu donc monsieur Sar, nous sommes très content de vous accueillir dans le landerneau politique de Thiès, non seulement Thiès Nord, mais dans tout le département de Thiès. Merci encore pour le travail fourni. Dès nañu aussi bu baax sama xarit une femme engagée très politique ku baax aussi donc madame le ministre je crois comprendre que vous avez fait les meilleurs choix choix yi mais que vous les avez fait pour moi je me les approprie parce que tout simplement ce sont des hommes de valeur toutes ces personnes associées à ceux qui étaient là en 2008 à ceux qui nous ont donc euh, accompagnés je pense que ça fera un excellent cocktail pour la victoire de 2019, mais seulement et uniquement au premier tour. donc damay je ñëpp ñi fi nekk wax leen ni liggéey bi lii la wax vous ko sànq Diop vous na Diop communicateur ku gis décor bi c'est un homme de valeur parce que le jugement est facile vous n'avez pas parlé de votre personne vous avez parlé d'une personne qui a été le choix des Sénégalais. 65% en 2012. C'est cette personne qui vous importe. Lolo Mota, Fotom Ça, c'est un choix extrêmement important. Et je pense que Thiès avait besoin de ce choix-là. Nous vous tendons les mains parce que tout simplement, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons gagner et très facilement. Parce que les décisions sont là, L'engagement est là, la détermination est là, parce que ça vaut la peine. Vous avez parlé de bourse familiale. Il y a énormément de choses à dire. Le New York, président Macky Sall, ndax amna gis-gis ndax amna xam-xam te Sénégal nañu ne ndax amna diiné. je pense que ñetti yoyu président Macky Sall am ko am gis-gis mais ndax liggéey na weddi gis bokku ci Mo xam PUDC e, mo xam Promoville lépp sujet bo jël président Macky Sall fa lu est-ce qu'il a une attitude de vision futuriste y a carnal na quand on plan on parle du plan du plan Sénégal émergent c'est ça la vision futuriste et c'est pour la jeunesse donc vous comprenez que qui je pense que c'est le meilleur choix pour le Sénégal pour ces prochaines années te mangi qui ñep l'unité et vous l'avez dit et ensemble je pense que nous vaincrons buñu andé dinañu am victoire en 2019 maa ngi leen di gërëm di leen sant